cinq te moom lañu am ma cinq lañu am ñun lu ñu am ma cinq lañu ko amee waaw am naa fi lu nekk ma donte ma cinq lañu ma ma cinq lu ma am ma cinq laa ko amee benn at laa fi ma dem sama ma cinq laa ko ma ngi ma cinq mosuma ma cinq ma cinq lu ma am ma cinq laa su ma amee kër ma cinq la su ma amee ngénte ma cinq la su ma lu ma def ma cinq moo may waaw maa ngi fi yàlla ko nekk nañ defar marché bi parce que ñu ko defar buñu xool nit ñi buñu xool nii intérêt nit ñi ci marché nañ defar marché bi tabax ko ay cantine ku ne am sa place nga toog mu nekk ci yoon bu taw dina am problème bu taw dina doo am doo am problème. fàttali ma tur bi ah fàttali ma tur bi. Cheikh Abdou Dioum Taïl Marzeng. merci waaw Cheikh Abdou Dioum Taïl Marzeng. waaw c'est la première fois Marzeng tàkk. c'est la première fois mu tàkk. waaw c'est la première fois mu tàkk dëgg yàlla. ma 57 ba léegi maa ngi Marzeng 57 ba léegi maa ngi Marzeng mais tey la ma sa tàkk tey jii la ma sa tàkk

baax na baax na baax na ni baax na li ñun lan ñu am fukki cantine bëgguñu ko laal loolu mooy lan fukki cantine yi ko am bëgguñu ko laal Balla Siang lan mooy lan mais loolu yàlla la ku am sax ku am ku am ku am kanti fukki cantine yàlla moo la wax yaa xam bel ñaa bul bañ yox na ko ba nga am bul xam bul bañ may baal sa jaaduwul dafa war a am yoon dama marché HLM xool li mu mel dañ ko defar jaaduwul a taxaw gouvernement bi a taxaw ci lii a ku mu neex ku mu naqari ñu defar magasin ku ne am sa place nga toog parce que yaatu am ay mbedd am ay robinet am booy am nga booy guddi boo tëddee doon na parce que dañuy xalaat sàcc magasin bi suñu sàcc parce que amul amul même garañe mënuñ ci dara waaw mënuñ ci dara garañe sax sax suñu sàcc mënuñ ci dara loolu dañ ci war a taxaw defar magasin bi mooy dëgg mooy yoon ngeen baal ma waaw fi sama rakk bi mu ngi fii ak sama mag benn mag Ousmane ak sama mbokk sama mbokk yëpp yëpp ñi nga xam ne dañoo yàqale dafa metti yàqale moo metti depuis fale maa ngi xool di jooy daa metti métti na torop métti na torop fi mu ne nii mënu maa wax sax fii laa newoon ci marché bi waaw ci bi fii laa nekkoon ci biir marché bi même dépôt bi ngeen gis nii sax sama dépôt la woon sama place itam moo nekk nii sama ginnaaw nii daal waaw. li nga xamante lakk waaw lakk gi de ay côté trois heures du matin daal lañ ñu woo téléphone nañu marché baa ngi lakk mais bi ñëwee nag fekk nañ tàkk-tàkk li bari ba nga xam ne sii daal ah, kenn mënut a dugg ci marché bi kenn mënut jege marché bi daal. sappoor yi itam woo nañ leen mais xaw nañoo yéex a ñëw tuuti biñ ñëwee itam amoon nañ ay conséquences pour dugg ci biir marché bi daal waaw moo tax affaire yi gën a gën a gën a metti daal. même sappoor itam bi mu wax dëgg yàlla franchement ay jàmbaar lañ def nañ seen kemt lay kattan daal waaye lakk gi moom wax dëgg yàlla metti na trop trop trop foog après que passé na ko daal metti na trop trop. ndaxte ay millions ay milliards sax laa mën na ne lakk na ci marché bi daal. ndaxte man mi wax yow nii lii ngay gis nii ni sama dépôt la woon démb rek laa ciy jënd marché ni sarse ndax marché bi demoon na ba nga xam ne si courant bi fu neex waay capp fu neex waay xëccee fiil Ah, te doo ci man dara itam waaw itam ñi nga xam ne si ñoo ko war a toppatoo war koo lijjanti itam muy waa Sénélec itam franchement côté boobu moom seen seen seen seen toppatoo des na bu baax a baax a baax ndaxte ñoo war a mën a dugg ci marché bi xam fil bi lu ko fi tax a jaar ak bii fu mu jógee nangam ak nangam waaye ñoom daanaka li li nga xam ne si moo leen di yitteel daal euh, weer de euh, facture ñëw nga fay seen seen xaalis affaire yooyu à part ça loolu daal moom. toppatoo ba ñu ko war a toppatoo amu ci daal amu ci franchement wax dëgg yàlla. waaw am am na mhm. yoo xam ne xëy a amati. waaw ah, mesures yi ñuy xaar moom wax dëgg yàlla mooy fi mu toll nii ah, ah état ci boppam état ci boppam la woo la woo mu dimbaliñ ci suñ marché bi ndaxte itam ay góorgóorlu lañ dañuy xëy di daw dépasse weer wu dee dañoo war a fay location di daw dépasse yor njaboot gu sew te wax dëgg yàlla mënuñoo xëy di tëdd wala ñuy def nag sulu noonu parce que ñun fii rek lañu xam depuis ba ñu xale bu ndaw ba léegi fii lañ nekk ci marché bi fi la daw buñ xëyee ñi ngi fi daw dépasse yor ci sunu njaboot defuñu lu bon waxuñu lu bon lu dul xëy ñëw ci marché bi liggéey moo tax lépp luñ ci mën a jàppale nu mu mën a gën a gaawee rek nu mën a gën a gaawee nañ ñu ci jàppale ndaxte wax dëgg yàlla mënuñoo xëy di toog waaw te bëgguñoo def naka su dul noonu la kon lu ñu ci mën a jàppale rek nañ ñu ci jàppale mu mu gën a gaaw daal. waaw d'abord avant loolu daanaka ci ay yeex naa ko yëg quoi parce que bi muy am ay deux heures du matin waaw parce que ñi ma doon woo sama téléphone sax mais jotuñu ma quoi léegi man bi ma yeewoo ay huit heures laa xool taal sama téléphone xool esthétique yi gis ko franchement mu nekk lu metti lu metti metti trop waaw parce que lii moom sama yaram dafa daw sax en tant que marché zinc waaw lii daal doy na waar quoi. ban situation la jàpp ni moo war a mën a indi lii parce ba tey xamaguñu lu ko waral ñii di wax waxu jàpp ne problème la ci marché zen ba war a am situation bi waaw parce que boobu ba léegi nag aw ma si lu ma leer quoi parce que maa ngi laaj gars yi sax mais gars yi kenn mënu laa wax lu leer. waaw kenn mënu laa wax carrément lii moo ko indi. Mhm. waaw même bu dul li indi lakk bi am na problème yoo xamante ne Euh, yu ci waaw waaw parce que marché Zing tamit dafa loolu gars yi dañ cee war a kii quoi parce que boo duggee biir marché bi da gis fii li ni muy rombantee biir marché maanaam sa yaram day daw sax parce que wóorul daal waaw loolu tamit gars yi war nañ cee gën a jël seen matuwaay daal waaw. mbirum courant daal dafa doy waar ku jug xëcc ku jug ku jug xëcc parce que bu yàggee loolu rek mën na la indil jafe même gaz yi ñuy wàcc si marché loolu lépp tamit ay problème lay indi. waaw yooyu yëpp tamit gars yi war nañ ci gën a mën a xoolaat daal. lan nga waaw lu mel nii moom yaakaar naa du tey du tey dong la quoi parce que yàgg yàgg nañu yàgg yàgg na dal marché waaw di ñaan yàlla daal état bi en tant que marché Zinc marché Zinc du marché bu ndaw waaw marché bu la boo xam ni nit fu ne lay jóge di ñëw waaw te maire yu gëm su gëm seen bopp ñoo fi nekk teel a xëy guddee wàcc maire yu jàmbaare sax wallaay lansin waaw di leen ñaanal rek état bi ñëw jàpp si defaral leen ko. waaw parce que bu dul dara sax man ci kaw tali laa nekkee sax mais ñi ci biir marché bi ñu bëri samay waay lañ ñii samay yaay ñoo fi nekk ñii samay xarit waaw ñii samay frère waaw bu nawet bi jotee sax boo fi duggee sa yaram day daw waaw di ñaan état bi ñëw jàppale leen defaral leen ko jàppale leen parce que lii dafa metti sama yaram dafa daw sax parce que sànq dama ñëw taxaw benn paa ñëw taxaw sama wet ne ma sama doom lii lii sama place bi démb laa ko doon chargé ay millions laa ci def xoolal tey ñaar fukk yi barki yeneen ti yàlla Muhammad ak ajuma ji daan ma cent yi laa fa fekk cent yi xam nga loolu métti na quoi waaw di leen ñaanal nag quoi ñoom ñu si yàqule ñëpp suñu borom may leen xolu muñ quoi waaw te xam ne lii yàlla rek moo ko sañ daal waaw du nit moo ko sañ